Dakar Fatick 66 kilo. Cheikh Sar Arbi atte na leen avertissement pour Cheikh waaw waaw Cheikh Sarr am na ñaari avertissement waaw waaw Cheikh Sarr jël na Saliou Cheikh jël na Saliou da koy daan daan na ko Cheikh Sarr daan na daan na Sow Mari Saliou Fati 66 boobu leer na ndeysaan Cheikh Sarr daan na ko Cheikh Sarr daan na Saliou Fati Sow Mali Sadou Babé ba nga naan ko accéléré ko ñaari côté gaa ngay bëre ay jinne lañu waaw waaw Mor Niang Mbaye Diop Mbaye sol na ko loo ci mënut a xam mooy combat ba métti na ndeysaan temps ba jeex na temps ba jeex na de waaw baik Diop moo war a jàll de ndax moo am benn avertissement ki ñu ngóor ñaa xam na ñaari avertissement waaw victoire de Mbaye wow sur ngóor ñaax par avertissement waaw waaw Ahmed Diop Ahmed waaw waaw ay dina lañu de ñoom ñaar ku ne da nga def say preuve ndeysaan Ahmed Dior waa Palmarin la ndeysaan bu ñu duggee Palmarin suñu xel day dem suñu gaay yi di mel ni Mansour wala nga ne Mansour production Mansour Seck ndeysaan waaw waaw avertissement bu double moteur

waaw waaw lu arbitre bi wax victoire de Seyni Bargny sur Ameth Diokh sur Ameth Diokh diggante Famouda ak Sélémène waaw waaw demi-finale la 100 kilos Famara Sarr Fatick Mamadou Moustapha Sène Dakar waaw waaw hee Famouda daan na ko Famouda daan na Sélémène 2-2 waaw waaw Sambura daan na Sélé Méné de deux waaw waaw Ibou ñoo ci Dakar demi-finale 2-2 la def ñoom ñaar 2-2 la def bi moo leen départagé fils de Balil jël na Ibou war ndombo Ibou war ndombo da koy daanam déet Ibou Ndiaye Fils de Batling eh, eh, jeex na Ibou Ndiaye daan na Dakar finalu na Dakar en final waaw waaw Kodio Boli la vacherie des Parcelles Assainies waaw waaw moo ngi Dakar en final en attendant di xaar